ay poste léegi yéen loolu sama copain ah kat na moom Dame kaasul waaw léegi kaasul léegi yéen mm. Barham mm. à travers yow euh, c'est c'est quoi votre attente lan ngeen di xaar poste euh, xaar xaaruñu dara ci gouvernement yomb na de loolu non écoute je termine ça c'est discours purement ah, politique ah, xaaruñu dara on fait du def dara pour dara xam nga xam nga déjà déjà xam nga balaa ngay réclamer dara dafa fekk lu la xamante ne si ngeen ko si ay charte comme xëy na ñun bu ñu adhéré dans la coalition. balaa mm-hmm. coalition sax parce que ñun dañoo nekkoon euh, LACOS parce que LACOS moo indi Diomaye président. Mm-hmm. pour vous dire que ñun bokkoon na ci les premiers également ñu bokkoon également LACOS. vous comprenez mais bu ñu fa mm-hmm. nekkee bu ñuy signé charte amuñu fenn foo xamante signé nañ charte ni boo duggee ci coalition lii ak lii ak li nga fay leen kese lañ la mën a laaj boo duggee ci coalition. lépp loo xamante ne c'est une communication boo xamante ne c'est des communications extérieures pour au moins euh, essayer de dénigrer la coalition bëgguñu ci lool mais boo duggee ci coalition lii ak lii ngay fay ci charte lii lañ mais amul loo xamante ne fenn foo xamante ci charte ci coalition ñu ne la lii ngay joxe après bu ñu gagné voilà ce que tu amul benn pour pare boo xamante am na kon ñun que ça soit ñu ah, bu ñu nommé ba xam ñu ba non amul. am na mais mais. Ah, ah, léegi léegi léegi léegi jox ma si benn. déedéet man joxuma de waaye am na ay waxtaan yoo xam ne da koy fekkee. waaw doo ko fekkee. non waxtaan yi bu ngay fekkee. non waxtaanee ca kaw <laughs> avant <laughs> dañuy teg leer nañ. léegi ma ma wax la dara man ah. yaa amul discussion yu bëri bon ça peut être yeneen discussion yoo xamante wala yeneen réunion yoo xamante ne conférence des fekkee ma mais su fekkee ne sans réunion des conférences des leaders xamal ne 99 fekkee naa ko. aw ca kaw laa wax. ne ca kaw lay si ñan ñan ñooy. conférence léegi ci bureau yi. yi fa ñuy noter na see ko waaw baax na loolu nangul naa la ko. damay ànd ak yow soo gañee lii laa bëgg. mais ñun déedéet loolu mos jóge Sénégal. waaw léegi ñun amuñ defuñu loolu. neel xamoo yëgoo. parce que déjà déjà déjà déjà déjà pour vous dire pour vous dire vrai tout ce qui démarche pour la coalition Diomaye président moi c'était au cœur des des événements parce que ça va trouver que Barham le président Barham. may vous dis la vérité parce que am na waxtaan yoo xamante ne Barham fekkee wu ko parce que il était au Canada. vous comprenez Barham il était Canada en ce moment là dafa demoon benn déplacement boo xamante ne il était Canada pour cinq jours il est revenu les derniers pas les premiers pas c'est moi qui c'est moi tout. am na waxtaan yoo wax ji. yoo xamante ne concernant na Barham dit que vous avez dit waxtaan yooyu noonu je mais ce la question ce n'est pas ce n'est pas de partager le gâteau xam nga question bi laa la comment les sénégalais crise bu nga xamante ni moom la ñu yàgg a xam ñu bañ a fa demaat ci loolu la vie chère la cherté de la vie comment faire de telle sorte que ñu jógee ci loolu le rapport de OFNAC yi nga xamante ni ce qui ce qui est sorti comment faire de telle sorte que ñu nga xamante ni duggul nañ ci tudd nañ leen comment ils vont de telle sorte que bien sûr vous comprenez parce que déjà quand on parle de rapport c'est écœurant parce que pourquoi parce que quand on met en place le rapport OFNAC ñi ñu ñu ñu tudd ci euh, le scandale le scandale du, du Prodac alors que le Prodac le programme de domaine agricole communautaire programme boobu noonu bu ñu koy bu ñu koy mettre en place fan lañ ko def c'est dans quelle région où ce, ce programme a été mis en place même daaneel foofu na xam nga le programme wala lañ fan lañ ko defoon c'était où c'était c'était au niveau de la région la plus reculée C'est l'année où la raison a été classée la raison la plus pauvre au Sénégal. Mais où est le PRODAC là-bas? Qu'est-ce que le, le PRODAC a apporté du concret au niveau de cette raison À part le classer dans la dans c'est c'est autre chose. Hmm. Si, c'est du non, Kolda.